جزاك أقل إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا دارك ولاك فاحلم بأنك عندي سوردا أبدا وساكربك في دنيا أخراك فهدم على شرقي والإخلاص مجتهدا في سري والجري كي تنمو مزاياك جزاك وياكم yaa ko jagoote yaay borom Serigne Bamba la tànn jox la ko jaaraama Cheikh Serigne Sarr di Cheikh Serigne Sarr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ngi يكتي sama kàddu تشندي قالوا sëriñ خليل سار di ñaan sunu borom سوفان may la wér ak kàttan ba na lii nga donne ci sëriñ bi sunu borom yàggal ko ci sa loxo ku yokkul ku ne danga wàññi waaye ku ñëw ci dëkk bii tey danga gis ne lii la mag ñi bàyyil yokk nga ko jërëjëf Sarr njaboot gépp ñu ngi sa ginnaaw àndoon ak yow liggéey yi weesu waaye fas yéene ànd ak yow ci liggéey yi ci sunu kanam insha sëriñ baa ngi nuyu sant mbooleem kilifa yu tedd fii teew di ko tàmbulee ci kilifaam seex muhammadul muntaxa mbàkke ay yaddahu laahu wa nasara wa attaala baqaahu fiina wa saxaha ba liggéey bu réy bi muy liggéeyal maamam ju tedd ja seex ahmadu bamba xaadimu rasuul mu àggale ko fu kawe njortam te nu ànd ko ak moom ndax bëggam gépp mooy liggéeyal sëriñ bi di ku bëgg jàmm waaye bëggal jullit ñépp jàmm yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko moo mboolem kilifa yi diine yi ci réew mi yabar na doomam sëriñ Kosso Mbàkke di ku koy jàppale ci liggéey bi sëriñ koso yàlla na yàlla guddal saw fan te wéral la ndax lii ngay def di jàppale sëriñ bi murit yépp nga ko defal kon Mbàkke jërëjëf sëriñ baa ngi sant sëriñ Sidi Mbàkke Abdul Ahad yabal na doomam sëriñ Abo Mbàkke boole kooki ndaw ak i teraanga di sant mbooleem jabootug Seex Ahmadu Bamba gi fi teew te ñu ràññ ci sëriñ Mahamadan Mbàkke moom Seex Mohamadul Murtada Mbàkke sëriñ Mouhamed Mouhayminu ah, Mbakke moom Cheikh Mouhamadul mortala Mbakke ak mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Bamba gi fi teew ci suba ba léegi ak mbooleem sunu sët yi ak sunu jarbaar yi sëtoo ci sëriñ bi te bu ñu tëj su tuddee sëriñ Basiiru Mbakke Maxtaar mu mel ak sëriñ Abdou Assis Mbakke mu mel ne tudd nañu ñëpp jërë ngeen jëf lii bokk na ci ndono li ndax dëkk bi benn la ci dëkk sëriñ bi ndax ki ko sanc bi seex sëriñ Sarr gannaaw yàlla lu nekk ci moom sëriñ bee ko ci def li ko sëriñ bi joxoon nit ne ko foo ko def ma fekk la fa ak lu ma xam nee na fii la ko def kon dëkk bi sëriñ Touba ko moom ku donn tuubaa doon nale ko jërë ngeen jëf Mbàkke di sant sëriñ Sidi Sarr ak mbooleem njabootug seex Ibrahima Sarr gépp tàmbulee ci kër sëriñ Mouhamadou Sarr sëriñ Mbacke Sarr sëriñ faliilu Sarr ba ci kër sëriñ Mor Diarra Sarr genn kër di suru kër gu nekk seenu njaboot teew na di sant mbooleem seexi sëriñ Touba yi fi teew bokk ak nun bis nu bokk ak ñoom jërë ngeen jëf di sant mbooleem kilifa yi diine yi fi teew tey rafetlu seenu taxawaay di sant bokki jullit yépp bàyyiwuñu kenn di sant waa dëkk bi ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne am nañ ko ci bis bi te mësuñoo dañ di ko taxawe di sant bokk ak mbooleem bokki dëkkandoo yépp rawatina taalibe yi nga xam ne lu nekk ci kër yi ci teraanga ñoom la jërë ngeen jëf yal na yàlla dolli seenu njub te dolli seeni xéewal di sant jamaahatu Seex Sëriñ Saar ak mbooleem daayira yi nekk ci dëkk bi di beral ak cant ci mux mux ca kanam ci jàpp gi ñu jàpp ci lépp luy defar dëkk bi te di ko taaral yal na yàlla jàppale leen ci barkeb ki sancoon dëkk bi sëriñ bi nee na mu ngi sant mbooleem njabootu seex sëriñ Saar ji mu bokkal bis bi seenu taxawaay rafet na sëriñ bi rafet na rafetlu na ko jërë geen jëf sëriñ baa ngi beral ab nuyoo akuk cant ci kilifa yi fi teewal état bu senegaal te ki ko jiite di Seyxu Seydou euh, préfet bu Louga ak sous-préfet Mouhamadou Ba euh, di sous-préfet bu Kokki taxawaayam ci bis bi rafet na booba ba léegi ñu ngi jokkoo ci lépp luy defaral bis bi waxtu wu ne bi ngi woote di soññee ka laaj démb daf ma woo ne ma daal xam naa ne yow amoo jot te bëgguma bis bi dara sooxe wax nañ sax Sénélec Sénélec ne bu délestage am waaye nag danga may boole koo xam ne buur dara xewee rek mu man maa te mu man maa leeral ca sa ma mën a jóg taxaw loolu yitte la kon jërëjëf sa taxawaay mat na rafet na ah, di sant euh, sunu maire bu caameen moom it li nga wax ci moom rek doy na soxna Aram Diop ku bëgg dëkk bi la euh, lu man ak lu mënul lu ne ñu ngi koy jéem ngir dëkk bi jëm kanam aram jërëjëf di sant it sunu xarit may sa sele njaay moom it taxawaayam ci bis bi rafet na lool keroog mbali ma mook soxna aram mbooloo mu bari lañ fi yabal ñu ñëw seetal dëkk bi waaye yemuñu ci loola lépp loo xam ne nii luy defar dëkk bi la wala di ko taaral baa di ko leeral ngi ci soxna aram biig rek yónnee na fa ay lamp ngir ñu dolli ko ci leeraayu dëkk bi loolu wax dëgg yàlla yitte la ñi ngi leen ci sant bu baax a baax te di leen gërëm di sant mbooleem maire yi fi teew ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom ngeen àndal jërë jëf sëriñ baa ngi leen di sant bu baax tey ci taxawaay bu rafet bi ngeen am ci bis bi mbooleem service yi ngeen joxoon digal li ngeen leen digaloon lañu ca man lépp def nañ ko kon jër ngeen jëf sëriñ baa ngi leen di yóbbante ak cant ci njiitul réew mi président Macky Sall te di ko ñaanal yàlla jàppale ko ba yan bu diis bii mu yanul réew mi yàlla wayafal ko ci boppam ak mbooleem ñi koy jàppale ba yaakaar yi nit ñi am ci moom mu matale ko jërë ngeen jëf sëriñ bi nag nee na ñu waxtaane tuuti ci yar ak i teggin ndax yar ak i teggin warees na koy waxtaane jamono yu nekk rawatina jamono yi ñu toll nga xam ne bareetul te mooy loo xam ne bu ko nit ki amee day mel ne ñàkkul dara waaye bu ko nit ki amul it day mel ne dara nekkul ci moom sëriñ tuubaa nee na teggin mooy bopp jikko yu rafet yépp waxtu wu nekkee ci nit day rafetal digganteem ak boroomam waaye day rafetalit digganteem ak nit ñi teggin nag ñaar la teggin yi war sa digganteeg sa boroom ak teggin yi war sa digganteeg nit ñi teggin yi war sa digganteeg sa boroom mooy jëfey ndigalam bàyyi ay tereem sant ay xéewalam muñ ay natoom boo ko defee matala nga ca teggin ya dox sa digganteek sa boroom teggin yi war sa digganteeg nit ñi mooy nga weg mag ñi yërëm ndaw ñi def sa moroom ni nga def sa bopp boo ko defee matale nga ci teggin yi war sa digganteeg nit ñi sëriñ Touba nee na koo xam ne yaa ngi sàkku sa boroom ci lu dul ay teggin yàlla dana la xañ la ngay sàkku waaye dana la xañ it ak texe is kullu man bi xayri ramattiba fa innahu yuhramu fawsan wantifa nee na ñàkk ay teggin day tax ak mbañeel dox sa digganteeg sa boroom waaye it day tax ak mbañeel dox sa digganteeg nit ñi wa man xala minhu faqad tahattala wa tabattala wa saara bahidan ilal xalqi wal xaaliq ñàkk ay teggin day tax nga xeebu lool ci nit ñi waaye nga doyadi lool ci nit ñi ba ku la gis xeeb la moo tax Sëriñ Tuubaa na boo bëggee am ay teggin defal nit ñi ni nga def sa bopp ak nu nit ki man di mel ak lu nit ki xebu xebu wa jaxlu mislika ka nafsika siwa li wajhi khaliqin ala al xarsi istawa ko def ni nga def sa bop mu def la ni mu def bopam wala fi nee bo yekete sa loxom day jor ni faliwuma ma kenn yëkkatil sa cham moy ni kenn faliwuma ku fali nit ñi nit ñi faale la ku warmaal nit ñi nit ñi warmaal la ku sofel nit ñi sofel sëriñ tuuba nee na wa kullu man yansuru fawxahool kilaab fal kalbu xayrun minhu doona irtiyaab waxtu xoolee xaj ya ba jàpp na yaa leen gën a kawe nee na fekk na xaj yàlla benn xaj ca xaj ya moo la gën a kawe ndax li ann asla kullu naasin aadamu wax wa min tiini turaab faxlamu cosaanul bépp nit mooy doomu aadama mooy mooy aadama te aadama ci ndox ak suuf la sosoo kon ñëpp ay nawle la nit ku nekk daal la muy gëne moroomam mooy lu sunu la sunu borom waxoon ni inna akramakum indallaahi atqaakum kon nit ku ne fi mu teg boppam rek foofu la war a teg moroomam li mu bëggal boppam it moom la war a bëggal moroomam loo natt ci sa bopp te jékkul bu ko teg kenn waaye bu ko wax kenn waaye nekk ci média yi wala réseaux sociaux yi ba internet di yàq deru gor ñi fekk gor su set wecc nga tuumaal ko yàq ab deram di wax te ku wax nga saaga ko baa nga ñàkke ko teggin ba sax nga sosal ko lu ñaaw lu mu deful koo xamal lu ñaaw waxal ko ko te doo wax la mu rafetle koo mën a yàqal yàqal ko te doo defaral kenn koo mën a nax nax ko koo jekku yëfam mu dem koo ëpp doole wan ko ko te doo ko yërëm koy jëftal koy jëflanteel ku ne di xool noo ko te loo bokk ak say moroom it bëgg jaa ëpple ngor amatul doo setal te ku setal nga taqal te loo taqale sànni ca mbedd ma bu ñu la waxee nga ne mbeddum buur la te an na fii al iman lii bu ñu ko bawul fu réew mi jëm kenn xamu ko kenn sàmmatul àqi dëkkandoo ak moroomam kenn xamatul lu la war ku ne di def la la neex kenn bàyyeetul xel kenn ku ne di lor moroomam te lii lépp bokk na ci li ko waral mooy ñàkk ay teggin te nit ki bu amul ay teggin jikkoom day ñaaw te ku sa jikko ñaaw mën ngaa def ñaaw te ne loolu mo waral ñaawteef yu bari bari go xamne jaaxal na kep ku bëggul bax waye nak li sunu borom waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko khul la yastawi khabis wa tayibu wala wa ahjabaka kasratu khabis fattaqullaha ya ulil albaab laxallakum tuflihun waxal yow yonent bi ne lu bon lu mu bari bari do yam ak lu bax donte bari lu bon nga bari na ba yéem la kon daal ragal leen yàlla yéen borom xel yi ñu war cee dégg ne nit ki bu ragalee yàlla mucc na ci lépp lu bon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ne ku ragalul lu dul yàlla yàlla du xiir wenn ay jëme ko ci yow kon nañu ragal yàlla ci sunuy diggante waaye ñu ragal yàlla it sunu sunu diggante sunuy way jur tey topp seeni ndigal ndax ñàkk topp ndigalul way jur bokul ci ay teggin te da bok ci bakar yu magi te bakar bu mag day yóbbu nit sawara serigne touba ngi netti ci terem bañuy wax silkul jawahir neena jele nañu ci anas mu ne am waxambaane wu ñu da wax kufar non ku farlu lol ci top yalla bari won lu mu da sarxe mu tawar nak ba tawar ja metti lol soxnaam ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ko tawar yonent bi yoni bilal ak salman ak xaliyun ak hamar ne len bu ngeen deme ngeen setal mako bi ñu dikke ba ca kër ga fek ko muy sukurat sukurat su metti ñu diko sabatu sere yi ndax la hadis ba wax ne kumu mujj ci saw làmmiñ nga dem aljana waye ñu sakko ko sa mënu ko wax ñu daal ñaaw njortu ci mom daal di bilal ne ko demal ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ñun kat doon nañ ko sabati sere yi waye waxuko yonent bi daal di laaj ndax xal xama ñaari way jurum ñi ngi dundu ñu ne ko bayam mom fatuna yaayam nak day mag waye mi ngi dundu yonent bi ne bilal neel yaayam dama ko soxla bi soxna si ñewé yonent bi ne soxna si da am lumay laaj ci mbirum xal-xama te ma bëgg nga wax ma la am lepp soxna sa ko mom day ku bari won lu muy julli la ku bari won lu muy li mu saa li mu daa sarxe sax xaw ma nu mu toll ci lim ndax bari gu mu bari yonent bi ne ko déet li may laaj kay mooy ana sa digganteeg moom nu mu demee woon mu ne ko man kat dama ko mere woon mu ne ko lu tax nga mere ko mu ne ko dadaa far soxnaam bàyyi ma ci bu dara ma saa dox sama digganteeg soxnaam yonent bi ne mere gii ko yàlla yaayam jii mere moo tax mënta tudd baati seere yonent bi wax bilaal ne ko demal wut matt mu bari dajale ko taal ko ba yànji ñu indi xal xama lakk ko ci biir sawara wi soxna sa ne ko a sama doom jii di sama meññatum xol ana nu ma koy seetaane ñu di ko lakk ci sawara yonent bi ne ko sawara wa àllaaxira dey moo gën a tàng fuuf sawara wi ngay gis ci àdduna te ni ko meree su fekkee baaloo ko mën dem sa sawara wa àllaaxi wara yonent bi teg ca waat ci yàlla mi nga xam bakkanam ci loxoom la ne ne alxama moomu daal julli yu bari yi mu daa def ak sarxe yu bari yi mu du ko jariñ dara bu fekkee yow mii di yaayam jéggaloo ko te seral sa xol ci moom soxna sa ne ko ah, maa ngi lay seereloo yow mi yàlla yónni ne sama xol sedd na guy ci moom mereetuma ko jàppalatuma ko dara yonent bi ne bilaal dellul kon ca kër ga seet ba xam mën naa tudd baati seere yi wala déet ndax li yaayam wax ne jéggal na ko jàppalatu ko dara su dee dëgg da ko fekk mu mën a tudd baati seere yi naka bilaal dem ba tolloog buntu kër ga dégg xalxama muy tudd yàlla ca kaw akub yonentam noonu nag xalxama daa di faatu ñu daal di koy waajal yonent bi jullee ko mook ay saabaam dem ba ca armeel ya mu taxaw ca catul xabru ba ne leen yaa mahsaral muhaajir muhaajirina wal ansaar man faddala sawjahu ala ummihi fa alayhi lahnatullaahi wala yaqbalu llaahu minhu sirfan wala hadlan ay fardan wala naflan yéen ñi bàyyi koo màkk ñëw màddina ak ñi dëkke màddina koo ci xam ne fabatina soxnaam teg ci kaw yaayam baa ngay faral sa soxna bàyyi sa yaay ne la wóor ne yàlla rëbb na la te dootu nangooti sa dara moo xam naafila la wala muy muy farata jamono ji ñu toll nag waxuma la far sa soxna ci kaw sa yaay waaye lu metti lu nekk ñi ngi koy teg way jur yi kon nañu fonkaat way jur yi te topp seeni ndigal te warmaal leen te yërëm leen te rafetal lu ñu mën jëme ci ñoom wa wasayna al insaanu bi waliday bi walidayhi ihsan sëriñ Tuubaa nee na bokk na ci ay teggin nga yërëm sa ñaari way jur tey topp seen ndigal ca la neex yàlla donte na sax bokku leen diine wa yajibaani yaa aqi fi rahmi wa waladin walaw li sirkin yantami nañu góor góorgóorlu lu ñu man ci rafetal sunu digganteeg sunuy wayjur waaye rafetal it sunuy diggante kenn ku nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom kenn ku ne di wax lu rafet ci sa moroom te bañ a wax lu ñaaw ci sa moroom ab jullit sañ te wax lu ñaaw ci mbokkum jullitam rawatina mbokkum jullit ma fa nekkul te loolu mooy jëw sunu boroom a ngi wax ca téereem bu sell ba wala yaqtabu baxdakum baxda bu ñenn ci yéen di jëw seen moroom daf caa teg ay hibbu ahadukum an yaakula lahma aqihi mayitan fakarihtum ndax kenn ci yeen bëgg na bokkam faatu mu tim ko di lek Kongegis kon nga gis jëw bon gi mu bon ba yalla di tekkale sa mbokk faatu nga di lek motax serigne touba wa khibatul muslimi fi khawlil khabir aqbahu min aklika fatul hamir. jëw ab julit dal ci waxi aji dañ kumpa ja yalla mo gëna bon lek meddu mbam lu nonu nak julit bu ne war na koo moytu waaye fob sa bët rek teg ko ci nit ki di ko xool lu mu ñaawle nga wax ko lu mu rafetle nga noppi ca tey yaakaar ndimbalal yàlla dana jafe nga am ko sunu borom nee fattaqullaha wa aslihu saata baynikum ragal leen yàlla te yëwanal seeni diggante dellu waxaat ne wa tahawanu alal birri wa taqwa la tahawanu alal ismi wal hudwan dee leen dimbalante ci lu baax ak lu jëm ci ragal yàlla te bañ a dimbalante ci bàkkaar ak lu jëm ci noonu wa saa anna sa sallallahu alayhi wa sallam annahu xaal wallahu fi hawni l abdu wallahu fi hawni l abdu maa daama al abdu fi hawni aqi wér na jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne yàlla du dañ di dimbale ab jaamam li feek jaam baa ngi dimbale mbokkum jullitam kon ku bëgg ndimbalal yàlla nangay nangoo dimbale jaami yàlla yi te bañ a lor kenn ci wax waaye bañ a lor kenn ci jëf yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañ ko teewee na gën a déwén te kenn bañ a manqué wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ah jërëjëf Sarr.